lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko ma ne cohabitation pacifique wala taaj silmi ci arab lu neex layal la bu ñuy dellu ci texte lislaam yi kon problème bi du problème mu texte léegi mais sunu problème la en tant nit malgré tout ça dinaa dellu ci quelques textes wala boog ci yenn référence ci référence l'islam yi ku nekk ci ñun xam na ne yonte yàlla muhammad salaa sallam bi mu ñëwee madinat munawara dafa fekk ay nit yu wuute ci wàllu pas-pas mu ànd ak am mbooloo mu bari ñëw ñi jiitu ko fa ñi fekk ko fa ñi ñi ñëw ak moom mu fexe ba ci situation boobu Médine am ak dal benn problème amu fa mu réglé ko ci anam gu yéeme ba société bi am harmonie wax ma sax cohabitation pacifique mais mu am harmonie ñépp intégré ci gan ñi parce que nit ñi ànd dund ci jàmm dafa am lu mu laaj xoolal yonent bi sax ñi mu àndal ñëw din ñooy ay gan ñu leen tudde al muhaajiroon donte au lieu ñu tuddee leen ay xuraba ay doxandéem baat bu jara moytu baat bu jara moytu foo ko dégg rek cohabitation pacifique amu fa doxandeem yi amatu fa te ñun senegal dañ koy utiliser loolu moo tax li frustré nit ñi ci société bi dafa bëri bu loolu amee rek cohabitation pacifique amatut kenn ku ne am na lu net yooyu sol di ko xoolee sa moroom mais yonent bi salaasam ak mat gi ko yàlla may mu mat fexe na société boobu mu mooñ ko ba kenn ku ci nekk bi nga nekk ay société bi grade bi ñu la tappal tur bi ñu lay woowee du wane lu dul ku ngann ga ponkal nga ku am place ci société bi nga ñi tudd muhaajirun ñi tudd ansaar mu jeex ñu avancé mu des ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi Médine te bokkuñ ci islaam duñu ay jullit mu amat mat gu toll ni toog génne benn constitution saxifatul mën a munawara teg ko kenn ku ci nekk gis ci boppam comme ni ñu koy waxee ci sunu langage kenn ku ne gis ci boppam ko defi société bi am équilibre ñépp dal kenn du gis ne dañ la xej dañ dañ laa bodd ñépp xej maanaam ñépp bokk ba bi nit ñi demee ba ñi nga xam ne matuñu seen xel matuñ violé règle yi nekkoon ci constitution boobu la problème commencé am nit ñi commencé xat mu jur ñi génn Médine bàyyi fu seeni kër seeni alal dem parce que ñoom ñoo violé règle yi nga xam ne mooy tax cohabitation pacifique am maanaam loolu day fekk juste li ma fekk ci docteur wax ci waxtaanam muy dëggu ak maandu gi règle yi ñu suñ ci jaaree ñun ñëpp cohabitation pacifique dafay am suñ ci jaaree ñun ñëpp day am suñ ko violé rek problème commencé am loolu mooy li xew Médine ba mu jur déséquilibre jur cohabitation pacifique amatul jur am ñoo xam ne par force génn nañ Médine tayib yaakaar naa loolu rek mën naa ko jël ci départ bi ci des mooy Seydina Omar radiallahu anhu bi yàlla defee jullit yi ubbi beytul maqdis Jérusalem pour ak dal am fa ak ñañ fa fekk bokkuñ diine dañoo d'accord ci benn pacte boo xam ne dañ koy signé beneen def lu mel ni lu yonent bi xam defoon medin pour mu amuk dal moom la def léegi pacte boobu wasiqa boobu ba léegi histoire mu ngi ko garde jullit yaa ngi ko garde chrétien yaa ngi ko garde ñeneen ñi nga xam ne jàppoon nañ ni ñoom seen nekk fi du jur jàmm muy juif yi sax dañ leen rëddal fan lañ war a yem ndax ak jàmm am ak dal am stabilité am nit ñi dund dund ga amul problème xoolal dara gënul neex amirul muminin radiallahu anhu ñëw ñu jox ko caabi Jérusalem mu ubbi ko julli jot mu bëgg julli labbi yi ne ko na nga julli ci église bi dara gënu koo neex waaye dara gënu neex tam réponse u Seydina Omar bu ma fi jullee bu subaa julli ni julli woon naa fi ñoom église bi xaaral ma julli ci biti kenn du ko nangu bu ëllëgee xoolal fi ne ñun jullit yi rek léeg-léeg ñu am njàkk ki koy jiite jaxate lay sant wala laam cooli ne kor muy règle yi nga xam ne moom lañu war a respecté àndee ko kenn réglé kenn euh, respecté wu ko ñépp dañoo décidé pour violer dinaa ñëwaat ci loolu bëgguma xóotu ci misaal mi lislaam bi yàlla defee mu dominer ci monde bi di gouverner fu mu mos a nekk dafa am lu ñu tuddee ahkaamu ahli dimma maanaam ñi nga xam ne ñu ngi ci société bi te duñu jullit dañ leen di jël en compte minorité bi xam nga problème mu minorité problème la société boo dem minorité problème la mais loolu amul problème ci lislaam dañ koy teer a régler régler minorité bi di ko jàngal nit ñi téere fiq boo dem am na ahkaamu ahli dimma minorité minorité non musulman bi fi nekk lan mooy seeni àq Seydina Omar di dox te se genn góor goo xam ne ab yahuud la màgget di yalwaan yow góor gi looy yalwaan mag bu toll yow yéen a lekk sama ndaw ba mu jeex ma daan joxe fay impo léegi amatuma lu moo dunde da jàllat bi ko rek wax ne nañu dem xool kii mooy kan fu mu dëkk lan la soxla pour dund trésor public yoreel ko salaire am ba mu faatu mu jeex kon nga gis ne affaire bi ci sommet bi wala la war a commencé wàcc si pour déséquilibre bañ a am malheureusement suñu société yi ñuy dund fi mu ne tey stigmatisation bu métti moo fi am dañ ko wax ci dund hmm? ci misaal da nga tànn ak ibaadu da ngay dañ lay commencé indexé da nga tànn muuru di ko def bureau boo dugg docteur wax leen ji di ut liggéey duñ la jox liggéey parce que da ngay muuru képp parce que da ngaa teg morso sa bopp bi ab morso eh morso bi nga teg lan lay signifié da ngay màtte signifié dara noonu ni nga tegee morso la am ku ku mini jupe ci côté bi ñu bàyyi ku mini jupe nañ la bàyyi ak sa morso bi nga teg sa bopp malheureusement Europe mi ñu doon tagg ak Amérique ci seeni loi ak ni ñu gëmee doomu aadama léegi commencé na lañ fi mu ne koo woo wala ku la woo ne ci biti mu ngi jàmbat racisme gi nekk ci tubaab bi tey am na ñoo xam ne nag euh, conjoncture bi crise financière bi moo indi seen xol yi commencé naqari ñu jàpp ne étranger yi ñoo lekk li ñu waroon a lekk loolu beneen problème la mais ñun dañ doon ndamoo ñoom seeni loi yu baax seen respecté nit seen fonk àq doomu aadama ñun ñu jàng arab du ñu xajal mukk parce que ab arabisant égal con il ne comprend pa xamul dara xamul ci doxal àdduna bi dara la xamul waaw nay docteur ne dëkk Saalum sant Dramé seen yoon nekku ci bu bëggoon a postuler pour nekk tey directeur université ñu ne ab arabisant la sunu benn xarit dafa bëggoon nekk dafa bëggoon nekk euh, principal lu benn CM déposé xam nga lu ñu retiré retiré dossier bi en révisant foofu jàmm mën na fa am. moo dul dëgg c'est-à-dire àttewuñ ci dëgg. àttewuñ ci dëgg. ci dëgg dëgg ay ay ay norme la ay règle yu ne ci société bi war a régir société bi yépp ñépp yem ci ñu dox suñuy soxla mu jeex waaw ñu dox suñuy soxla mu jeex. Eh, ndeysaan sa Ahmad Dame sa Dame Ndiaye xam ngeen ko hmm. benn bés wan na ma lettre boo xam ne loolu gàccee la sax ministre de l'éducation nationale bi muy dem jàng da daan signé yaag sa parent ni pendant ni après en tant que arabophone bu génn Sénégal di jàng état sa yoon nekku ci yow ci biir bi ngay jàng du bi nga ñibbisee sa yoon nekku ci parce que yaa tànn jàng arab voilà subiral conséquences yi nii pendant nii après papier bu ngay signé ci ministère demal boo dee baax na boo ñibbisee boo dundee baax na boo dundul nga nekk charlatan ubbil benn pugus fee di nit ñi ñëw nga leen di dun loolu nga yeeyoo wasalaam lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko